bàyyi bi euh, xam na ni moo jur doom ji réclamation commencé am fekk na béy wéy na mbuus. léegi nag yaa jala ni woo oustaz donc lu ñu bëggoon ñu leeral leeral nga ñu ko <laughs> mooy amul benn droit moom ci doom ji moom bàyyi bi nga xam ne moo bañoon eh, moom ci côté diine bon foofu leer na amul benn droit ci doom ji xanaa ñoom juriste yi nag ñoo ndax diine gi moom côté boobu leer na moom amul droit ci doom ji parce que judduwul ci farata ak sunna waaye tam bam bañ ko jiiñee tamit dafa bañoon te lool tamit dafa ci yokkuwaat parce que diine da ko jamaat foofu tamit ah. ndax ndax bañ boobu tamit loolu tamit lu am solo la oustaz merci parce que dafa am ñu am na ñuy firee sax wax ni mhm. lislaam dalaa wax ni la bu la jigee bu jigéen ëmbee njëkk laa xaw jiiñ da ngay bañ ñetti yoon waxuñ ñu ko teg te tegukaay ba. déedéet dañ indi téere mais mhm. atte li lépp lan moo tax ngay bañ xam nga lu xam nga lu tax ñu wax loolu. léegi ah. léeg ci aada mooy maa tey yàlla bëggul jaam naan maa tey mooy daw sa responsabilité wan ni tayuma ba ñu taf la ci miir ni la yow la mooy day wane ni lii kat naqari na ma. waaw bu ne la yaa ëmbal nga ni maa ëmbal dafa mel da ngay naqaral yàlla. ñu indi ko ci kàddu gu rafet. mu ngi mel ni tey mm. njaga yére bi ma sol daamine bi bokku ci dañ ko cee def ngir mu taaral yére mm. waaye bu ci amuloon du dina rafet. Mm. mooy kàddu yu rafet la rek ñun la dawal tuuma ñu la tafee ci miir ñu xam ne nekkuloon loo tey. dëgg la mais bu fekkee ni xam nga euh, euh, Sénégal njaga buñ fi doon àtte l'islam mbir mi du yegg si fii. Mm-hmm. parce que bu fekkoon ne boo amee la xew ca na ba ñu dóor téeméeri yat ah lan moo tax bi yàlla lay wax njaaloo jiital jigéen dog góor ne na kat bu jigéen ak kat bu góor parce que bu góor ak jigéen tëjoo ci néeg bu góor yuuxoo bu nu ibbee bunt bi ah ko ay sa waay yow yaay yambar tëjoo di yuuxu parce que lan moo tax tey njaaloo lu ci ëpp amee léeg-léeg wala doom neex na ku jigéen ki mhm. parce que jigéen la ñuy forcer njaga forcer góor ngir sëy moom bu dee am na it bariwul mhm. moo tax l'islam bi muy wax njaaloo njëkkee njaalookat bu jigéen toog ci teg doog ci teg njaalookat bu góor te yàlla bu nee déet déetam boobu mooy dem ba yowmal xiyaam bu nee waaw gis nga njagal li araam àdduna lu neex ba mu dagan li mhm. jot a dagan àdduna lu neex ba mu araam dëgg la dëgg la mu jël téléphone bi 88 628 89 90 macha allah yaa oustaz yàlla na sa jàmm yaa yàlla na yàlla may gudd fan eh, ñoo la raw tey jii xoolal gis nga rythme bi ñu andil man sama jikko journaliste bi sax yeewu na di laaj bi ñu jeex allo ndeysaan yàlla na sa jàmm yaa allo salaamaaleykum waaleykum salaam man Soulay waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sama oustaz boobu Mouhamed Mbaye maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di nuyu Fall Ndiaga ñoo ngi lay fay ñëpp a ngi lay fay Mhm. di wax ne seen waxtaan wi am na solo leex neex neex na lool. jaajëf jaajëf imam waa nag di diggal ñun Mouhamed Mbaye loolu mu wax noonu ci doomu njaalo bi. Mhm. Mhm. loolu moo wér de. Ah, waaw. mu wax ci doomu njaalo bi daal moo wér. waaw. mais nag li ma ciy dolli mooy. waaw. Euh, sëy bii ngeen di réglé nii sëy bii ngeen di réglé. sëy amu fi de. waaw sëy. amu ji xamu ci dara. waa même jëkkër ji merci foofu nag laa bëgg a ñëw. waaw. Euh, soo demee ci téere bi nga xam ne moom la ñu mujjee jàng ci jurisprudence. Mhm. waaw. moom la ñuy wax Cheikh Khalil Mohamed may xam ne téere bi. Mhm. waaw. ñu mën koo gën koo miin ci Jawahirul Iklil. Mhm. waaw. ci page deux cent soixante seize. waaw. ndax ñu ngi dégg masala mi deux cent soixante seize. Uh-huh. ak donte jëkkër ji xamu ko mais ndaw si xamoon na ko. waaw. kon bu ñu ko xañ jëkkër ji dañ koy xañaale ndaw si ndaw si dañ koy xañ jëkkër ji ñoom ñaar du ñu ne dencante abadan waaw abadan ndax ndaw moo ko xam mais jëkkër ji du am benn daan ah mm-hmm. jëkkër ji am benn daan ndax xamu ko waaw mais ndaw si ko xam ndaw si ko xam dañ koy xañ jëkkër ji mm-hmm. ndaw si moom ak jëkkër ji duñ ànd ci ndaw si dañ koy xañ jëkkër ji mm-hmm. Mamadou Makhtar waaw laaj bi may laaj mooy moom laa laaj oustaz dama ni waaw ndax dañ ko koy xañ abadan wala day jàpp idda bu paree ñu mayewaat ko ndax jëkkër ji xamu ko. Mamadou taxawal foofu moom nag laa masala moom laa lay tegal may leen ma nga ni nga ni. masala moom laa lay indil. ne la waaw. ak donte jëkkër ji xamu ko. waaw. moom la Cheikh Khalil ne. waaw. wata abada. dafay dappati ko dappati ko mooy abadan abadan. waaw. taxrimuha araamu ndaw si araamu ndaw si ndaw si araam na jëkkër ji abadan. dañu sanctionné jigéen ñi rek. di wopp in di wopp in. Hmm. ci laal comme que jëkkër ji laal na ko nag ñàkk na. Hmm. wa in bi shubhatin. Hmm. mooy shibu nikaa bi Mouhamed Mbaye doon wax sànq. wa in bi shubhatin ak donte ci shibu nikaa la. walaw baadaha ak donte dañoo takk da koo ci biir ëmb bi xaar ba mu musin mu door mu door a sëy moom sax lislaam nee na araam na la abadan mais imam foofu am na ixtilaaf de. waaw mais parce que l'islam buggul buggul buggul buggul euh, bu yar ndaw si la yar. Hmm. mais du teg daan waaje ndax xam nga lu tax sanctionné ko waaw mawadda bi dox ci seen diggante mooy ndaw sii nii donc ndaw sii nii l'islam la mu ko sanctionné mooy mënatul sëy ak waaji waaw waaw kay ndax ci kër gi teguñ ko benn sanction mais ndaw si lañ xañ waaji abadan waaw ndaw si lañ faj waa ji abadan. Euh, oustaz mi ngi mi ngi daw de mi ngi daw de. bul daw kaay. ñu réseau bi yaa ngi fa am solo. Maba maa ngi lay dégg. maa ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw ayca moom laay wax ne la. waaw. masala bi. waaw. bu ra amul sax ixtilaaf ci mazhabu Malik bi ñu tënku. waaw. ndax téere bii ma cité Mouhamed Mbaye xam na ko Jawaahirul Iklil page 266 mooy xalil waaw. mooy xalil merci mooy téere bi ngay mujjee jàng ci wàllu jurisprudence islam. waaw. te tey islam bu doon daw Sénégal téere bi moom la ñu àtte woo moom la ñu yóbbu ci pale ba. waaw. téere bu xasee ba wax rek ñëpp jébbalu nañ moom moo xam ne xam nañ téere bi. lu mu wax lu mu wax lu mu wax. ndaw si ndaw si si boppam. Mhm. moom lañ añ jëkkër ji ndax moom moo xam li xew jëkkër ji xamul la xew jëkkër ji amul benn daan bu ñu koy mais ndaw si moom añ nañ ko jëkkër ji. Mhm. ok léegi. léegi beneen sew sew bi mooy. waaw ndaw soosu waratoon wuusin sax ñu maye ko ko. Mhm. waratul waaw ni ñun Sénégal dañuy fekk jigéen ji bu ñu ko ëmbalee bu wasinee rek ñu may ko jëkkër déedéet. waaw. du yoon boo demee ci si waaw du waaw. boo demee ci Siraaji Saalik. waaw. ñaari tom la ci deuxième tom bi. waaw. ci page quatre-vingt-dix-huit. waaw. Mohamed lay xam na téere bi. Mm-hmm. dafa ne si day ki ëmb. Mm-hmm. mooy bu si ëmb bi rek indi jeex na. mooy bu dafa nekk in kaana za min hilin bu fekkee ne dafa bàyyi ko ci ëmb bu dagan wa ulaatul ah. ahmaali ajlahunna waaw léegi nag waaw fa in lam yunhiqu bu fekkee ne yéegaluñu doom bi ci bàyyi ji comme doomu doomu ñu baalu ci kàddu gi mooy doomu njaal bi xam ne duñu ko yéegal ci baay ji waaw kon boobaa tàqadu dafay iddawu baa dal wat gannaaw ba mu wusinee mm-hmm. kal mu talaqati nit ki indee ku ñu fafe mm-hmm. dafa war a iddawu iddawu ku ñu fase. Mhm. iddawu. ku ñu fase nit day ku ñu fase. Mhm. Mm. jigéen bu ñu ko ëmbalee bu fekkee ëmb bi bàyyi ko ci ci mu war a bàyyi ko dañ koo ëmbal. waaw. Mhm. ndaw war a iddawu iddawu ku ñu fase. ñetti weer yi merci beaucoup li ma wax. donc ñeent fukki fan yi ñuy def sax du yoon. mais du loolu aada la comme ni ko Mouhamed Mbaye doon waxee sànq ci commencement bi aada la. Hmm. lii may wax ni mi ngi ci Siraji Salik deuxième tome page quatre vingt dix waaw. kon lii mooy seen masala bi ndaw si ndaw si mënatul ànd ak jëkkër gi na leer. Mhm. Matar. waaw. Matar eh, eh, eh, dàq nga tas beeg fa kañ kañ kañ kañ kañ lañ la may jëkkër nga àndaale ëmb ñu man laa ñu tasaat sëy bi. ñu mm. tasaat sëy bi jàpp iddam man la koo mayaat kañ. kañ lay doon alhamdulilah merci beaucoup merci beaucoup. kon boobaa bu fekkee ne tey. Mhm. maanaam waa xamu ko. waaw. muy labat ndaw si ci kaw ëmb dañ naan ko ndaw si dañ koo biiral. waaw te kuñ biiral waroo koo labat. waaw même kuñ biiral waroo koo labat. waaw léegi bu ndaw si wasinee. bu dee biiraloo ko. waa fekkee biiraloo ko. waaw même bu fekkee ne sax yaa ko biiral encore une fois même bu fekkee ne yaa ko biiral ndaw si war wasin ñu may la ko faaw mu iddewu iddewu ku ñu fate. foofu masala moom na ngeen ko jàpp. d' accord naa yooyu yëpp d' naa mais. maanaam bu fekkee ndaw si réew mi ko mu eggali fekkee comme ni nga laaj ndaw si iddewu na wasin na wasin na ba iddawu ñetti weeram ba set wecci mhm. boobaa nag mën nañ la ko may yow mi ko ëmbaloon wala yow mi nga xam ne yaa ko bëgg. Hmm. mais jigéen leerul leerul. wa ah. non mais daa leeru ci ma dama ni. mais dama ni ah, mais oustaz. dama ni ma ma euh, euh, euh, may ma c'est-à-dire que dafa am jigéen boo xam ne may nañ ko jëkkër. waaw ñu xam ne a ah, dafa àndaale ëmb. Mhm. ñu tas ëmb bi. Mhm. parfois dañ lay bàyyi ci kër gi ba mu am idda. ba sa idda jeex. ñu mayaat la. maanaam ban moment lañ la war a. Ah, kan merci beaucoup kan kan lañ ko war a. tas sëy bi ba mu idda ba ah, ah, kan lañ ko war a delloo kan lañ war a delloo foofu laay laaj. comprendre ay la. léegi loolu moom ndeysaan euh, comme li nga xamante ne doon wax sànq l'islam dafa bëgg sutura. kon ke yàlla ndaw si takk mbokk te xamoo woon ne dafa ëmb. Mhm. ba nga yëgee dafa ëmb l'islam nee na na nga ko fase gaaw bu ko laal bu ko laal. boo laalul. waaw même si boo laal moo tax seqali na la boo laalee rek def nga erreur. Ah. mais fekkee laaloo ko mën ko yëgee rek nga ko deer arrêté. boo laalee rek ñoom araam na la mën nga koo bàyyi ci kër ngir suturaal ko. ah ceeb moo tax yàqamti baaxul. mën nga koo bàyyi ci kër ngir suturaal ko. waaw. boo iddewoo ba idda bi mat nag. waaw. ba wasin na ba mat na ñetti weer. waaw. waaw kay ñu fasaat sëy bi nag. nga ñu sëy bi. mais bu nekkee ci ëmb bi xamoo yëgoo nga séq ak moom. waaw mais jëkkër moom bu fekkee ne yëgut ci mu seq ak moom moom. Mm-hmm. waaye ndaw si moo yëg ndaw si moo yëg. waaw mooy gàddu lépp. waaw kay kon boobaa ndaw si mooy gàddu lépp ndaw si moom xañ nañ ko jëkkër ci abadaan. xañ nañ ko jëkkër ji wala jëkkër. jëkkër ji. jëkkër ji jëkkër ji. ki mu sëyal. Mm-hmm. jërëjëf day leer lañ ko xañ abadan abadan. Mm-hmm. oustaz. Uh-huh. ay oustaz waaw. li nga wax léegi. waaw bàyyil xel ni euh, laysa fil kutubil euh, fiqi ilal xusumaat. waaw na am xal voilà doom yi mu am. waaw ci biir waa ji ko takk. Mm-hmm. ñu dem ba waa ji dégg toq ci noppam ni xale bu jigéen bii kat bi muy ñëw ci kër gi dafa ëmb. Mm-hmm. pour ma résumer la ko ndax heure bi xale yooyu. Mm-hmm. l'islam ni dañu tas sëy bi bu ko waa ji yéegee bu waa ji laabloo. dafa war a dellu siwaat ndaw si ñu may ko ko.